asalaamaaleykum chers internautes ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam euh, di leen dalal bu baax a baax seen émission li ci xel yi tey dañu ñëw fekk si ki nga xamante muy benn monsieur boo xamante ni mën nañ ne sax euh, kenn dootu ko présenté ci Sénégal ndax yu baax yi nga xamante mu ngi koy def di monsieur Pape Fall di président mouvement Renaissance sénégalaise moom la ñu dalal tey dañu bëgg waxtaan ak moom actualité bëgg a waxtaan ak moom jëfam yi nga xamante ne mu ngi koy jëf ci biir Sénégal lim ci jublu ba tey bëgg nañ koo xam lépp day leer ci seen émission li ci xel yi gannaaw bu ñu la nuyoo monsieur Pape Pape Fall euh, dañ lay bàyyi rek nga daal di présenté wu salaamaaleykum. ay salaam euh, sister Maria maa ngi lay nuyu di la di la sant di la gërëm ci déplacement bi ngeen def ba ñëw sama kër Setsima di nuyu di sant équipe bi nga xam ne ñoom nga àndal oui comme nous l'avons dit, président Pafal président mouvement pour la renaissance sénégalaise MRS opérateur économique à Dakar. Euh, président mouvement MRS Machala, le mouvement MRS non def ba Le mouvement MRS ni pas def ba sos euh, dès lors que nous avons eu def ci social dans nos côtés, ci sunu ay waajur ma dem ba benn instant que def social moi. nit ñëw ci yow am soxla nga seet nooy def ba fajal ko soxlaam du ko mën nga ko fajal soxlaam bu subaa mu amaat soxla ñëwaat ci yow benn jamono ma xalaat ni euh, li gën a wóor moom mooy def loo xam ne si dana tiire nit ñi vers leur bien ñoom ñu mënal seen bopp faire de façon que ñu mën a organiser mbooloo mi jàppale leen pousser leen financièrement techniquement jàppale leen pour ñu mën a liggéey mënal seen bopp yaakaar naa moo gën a wóor loolu moo tax mouvement pour la renaissance sénégalaise li ñu doon def ci social ñu indi ko ci biir recadré waat ko def ko développement social et ça a permis à beaucoup de sénégalais nos coordinations partout dans le Sénégal ñi ngi liggéey di mënal seen bopp te ñun loolu moom moo ñu moo ñu tax a jóg. léegi da nga toog ba benn jamono nga xalaat ne war nga koo mën a sos jamono boobu ban jamono la kañ nga ko sos. war na am ñaari at fii ñu toll nii. ndax 25 euh, décembre mobilisation bi ñu doon def ACAPES terrain ACAPES 25 décembre dernier yàlla def nañu def mobilisation bu ama ama am solo dañu wax ni ci ñi fa dëkk gëj nañu gis mobilisation bu toll noonu surtout euh, bu dee benn leader boo xam ne jóg na du état du ay ministre du autorité euh, politique yi wala ñu wax gouvernement ñoo nekk sa gannaaw mais un privé jóg rek organiser cérémonie bu toll noonu ak mbooloo mi fa wàcc yaakaar naa ni yéemoon nañu bari d'ailleurs indi woon na coow lu baree baree bari eh, mais Dieu merci lu mel noonu mën nañ ko def mën nañ ko gën a yaatal sax ndax mbooloom yàlla dogal na wuy si nañ ma ndax xam nañ ni xel ni man ñoom ñoo ma tax di daw c'est-à-dire c'est comme une mission boo xam ne yàlla daf ko daf ma ko daf ma ko jox donc ma bëgg ko nag di ko doxal mbooloo mi wuy si ma ñi ngi koy liggéey nit ñaa ngi liggéey di góorgóorlu di manal seen bopp te ñun bien-être population bi rek moom moo ñu tax a jóg. Euh, comme nam ko waxee mais social bu ñu ko waxee social dafay yaatu social bu ñu waxee am na ñi nga xamante ni dañuy néew doole am na ay groupement yoo xamante ni tamit dañuy soxla social yow si ban côté nga basé wu ci social parce que bu ñu nee social rek dafa vaat. waa xam nga social bi ñun euh, li ñuy gën a def c'est-à-dire économiquement parlant mooy faire de façon que nit ki soxla bi muy am di ñëw ci yow. bon ñun ñëpp ñoo bokk yam parce que tanante bi bariwul mais dafay am ñoo xam ne yàlla moom moo leen di teg mission yu mel noonu nit ñi fu ñu jaaxlee ni xaaral ma dem ci diw wala ma seeti diw yaakaar naa bu ma fa demee sama aju mën na faju du jaaxle bi toujours du mbiru xaalis kese mën na doon yeneen soxla mais euh, oreille attentive boobu nga leen di tendre di leen déglu di xam seen jafe-jafe ak ci niveau bu mu mënti doon di ci jéem apporter ay solutions. loolu c'est c'est dans le cadre social mën nañ ko waxee ni noonu la mele mais mën na am yeneen forme aussi ndax social comme ni nga ko waxee yaatu na euh, ñun côté bi ñu ci gën a nekk nag développement socio-économique faire de façon que les gens puissent se lever un jour et avoir le visage radieux jën Jafé jafe wàññeeku ak ci mu xam xeetu jafe-jafe bu mën a tegu Sen seen kaw ñu mën ci am ay solution au fur et à mesure te yaakaar na loolu tamit lu am solo la lu am solo la mais dama bëgg tamit ñu des fa bu baax a baax a baax ndax gis nañu fi mu toll ni période campagne bi sa laay wala bi bi frais mandat bi di jot di jeex gis nañu benn euh, benn mouvement la xaw ma laa ko mën a tuddee boo xamante ni dafa ñëw di jàppale nit ñi suñu yaay yi ñu bëri gis nañ ci seen bopp muy deex bi muy financement yi yow genre boobu ngay def wala da nga jël beneen waaw non non c'est-à-dire ñun genre bi ñuy def euh, ñun appui direct au développement la ñuy def c'est-à-dire ñun euh, li ñuy li ñuy joxe euh, bokkul comme ak DER bi DER bi aussi ñu ngi félicité initiative bu toll noonu boo xam ne président daf ko teg di dimbali peuple bi di jàppale sénégalais yi ndax sénégalais yi ñoom li ñu soxla mooy koo xam ne da nga mën a def ci seen ci seen social living fekk nga xam ne bu ñu xëyee mën a régler seen ay problème mën a mën a mën a subvenir à leurs besoins te loolu yaakaar naa ni réglé na ci lu bare bare bare DER bi donc ñun loolu c'est l'occasion aussi ñu féliciter le président de la République féliciter autorités yi nga xam ne si que ça soit le ministre de l'économie des finances et du plan que ça soit le délégué nga xam ne ñoom moom moo yor loolu ñi ngi féliciter ñëpp euh, ñi nga xam ne jàpp nañ ci loolu donte euh, président mi ngi koy tiire sax di ko yóbbu ci ay ci niveau boo xam ne moom moo ëpp doole lu mu ko tiré rek doyul parce que sénégalais yi seen bien-être képp ku ciy dox rek yaa ngi leen dimbali te loolu jaamu yàlla aussi bu rëy la euh, te DER bi joué na ci rôle bu bu am importance mais pour revenir ci renaissance sénégalaise renaissance du du leble cest man damay organiser mars yi muy groupe yi sous groupe yi association yi di leen jubale di leen def ñuy benn di yëkkati kës néew lu ma yàlla dénk ak nu mu mënti toll di leen ko defal directement loo xam ne du ànd ak donc foofu la wutee ak DER bi mais ñun suñu la suñu ñëwee organiser euh, benn groupe def coordination MRS jël coordinatrice wala coordinateur teg fa mu jiite ko dañ koy boole yëkkati benn enveloppe ak nu mu mën ci toll boo xam ne sii am na montant bi mën naa ko bañ a tudd waaye am na fu muy jóge ak fu muy yam lu mu bari bari euh, ak lu mu néew néew dana mën a dimbali mbooloo moomu parce que dafa leen di rek pousser pour ñu mën a def un bon qualitatif amuñu lu ñu mën a jox ay nit pour développer leen parce que ñun ñii dañuy liggéey te dañu yor njaboot dañoo yor suñu ay ay projet yi bopp yor suñuy njaboot ginnaaw yàlla aussi ñu yaakaar ci ñun donc amuñu loo xam dañu naan ku ñu xëy gis rek sa ajo yëpp faju non dañuy organiser njaboot gi li leen teg sur les rampes du développement fexe de façon que Euh, bu ñu juboo doon benn ñu yëkkati as néew teg seen loxo ni leen lii boole leen ko ci li ngeen amoon su leen fekkoon ñoom ñu yor 200000 seen kees nga yëkkati 200000 teg ci muy 400000 su dee daf leen fekk ñu yor 500000 nga yëkkati 500000 teg ci muy 1 million ñu mën a def un bon qualitatif su dee fukk lañ doon man tout suite da gis ñu mën ñaar fukk waaw loolu mooy faire un bon qualitatif dans le sens du développement ñun ci yooyu lañ leen di jàppale daal. bu dul loo xam ne dafa soxla ay conseil amna na ñoo xam ne ay conseil la ñu soxla amna na ñoo xam ne ay orientation la ñu soxla pour développer seen seen seen ay secteur d'activité bu dee jeunesse bi nga xam ne dañ leen di dimbali ñun surtout ci li ñuy wax auto emploi ñu def de façon que ñu mën a organiser seen bopp loo xam ne bu ñu ci tegee seen tànk mën a